Anyways.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 kër ba ab waay faat ñetti doomam ba noppi faat boppam xaru ndax problème bu mu amoon ak soxnaam bii yoon ab jigéen a fekk ex copain ci bisu mariage am daa di koy jamate mbir mi nag nee ñu nii la demee samedi bi weesu ca Medina ab commerçant buy wuyoo ci turu moo fa doon takk jabar naka noonu emu fay di ex copinam dal sëri fisk fa paaka daa koy def ci saagam tagg pas ñëw ca Medina fa naan ri 5 angle Blaise Diagne fa atop commerçant bi mu doon génnal doon takkee jabar daa di ko fay fekk jamate koy paak eskay ndaw si nag nee ñu da doon vengé wu ndax ne kii di atop ma mu doon génnal daf ko ne fa ñukk ba noppi dem takki beneen jigéen oh ma ne firange mën na defloo nit lu ne la wax gannaaw njombe jooju ndaw si def nag yàlla mujj na tee sotti ndox mu sedd dëgg la atop jëlee na ci ay gaañu-gaañu yu metti waaye nag ñàkku ci bakkanam ndaw si jigéen si def njombe si nag mujj nañ ko teg loxo ba placé ko garde à vue kii daa feebar laa leen wax ndaw si nee ñu mi ngi am lu toll ci fanweeri at ak ñaar am ñaari doom teg si moom daal ne yëf yi vengeance moo ko ci dugaloon waay way waay lan moo dal suñu réew mi ba bi weesu nag ndaw si ci boppam waroon na taxaw ca tribunal waaye am fay mujjuta ñëw ndax daa feebar ba fi mu ne ñu ko entré ca l'hôpital di ko perfusé moo tax ba procès bi ñu mujj ko dàq ba le 19 novembre bi ci kanamu enquêteurs yi nag ndaw si ne li tax mu jam ex copain bi di wuyoo ci turu atop te di commerçant ba mu jëlee ci ay gaañu-gaañu yu metti ndaw si ne li ko waral du lenn lu dul fiirange ndax daa bëggul mu sëy keneen ba ko fii <laughs> moo tax ma waxaat leen ko fiirange mën naa def loo nit lu ne laa wax moo tax ñiy fooye mbëggeel ma ne leen ca dëgg-dëgg nag dañoo xamul ndax dafa mel ni ñuy dox ci terrain miine góor daal boo ko bëggul bàyyi ko bàyyi poosam waaye am na jigéen ñoo xam ni daf leen di leer ne ki ñuy génnal bëgguñu ko waaye koppar yi tax ñu toog gëm loo waa ji ne yow la ba noppi dëkkee koo witti moo tax li xew di xew rek ma ne am na ci jigéen ñoo xam ni attan nañu dem ba sax sëy ak yow fekk bëgguñu la ngir koppar yi ñuy am ci yow te nag loolu mooy indi nekk ci sëy bi ba noppi nekk ci see bi am jëkkër am far xanaa loolooy infidèle nag ma ne waaye tamit góor ñi jigéen boo ko bëggul bàyyil waaye am na góor ñoo xam ni bëgg lu yombaleen di bàyyi ci jigéen dëkkee foo ka caaxaan bu ñu demee bay takk xool beneen jigéen bu toog takk ko moo tax jigéen ñi xoolaat leen seen bopp ma ne lii mooy indi xew ci réew mi yëpp moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax borom sareet bi nag li mu def romb na doy waar ndax nijaayam dafa lank ne doomam bu jigéen boo xam ne ñoom ñaar yàgg nañoo génn borom saret bi dal di jël photo xale bu jigéen bi photo boo xam ne xale bi dung la ca def dal di koy publier ci groupe whatsapp ëppatalaw borom saret bi nag mu ngi dëkk ca quartier Ngende ca Touba di wuyoo ci turu M Fall nee ñu amoon na jabar ba divorcé naka noonu ci la doon bëgganteeg doomu am gannaaw ba mu ñëwee di ko ñaan si nag nijaay ji lànk ba tëdd ci naaj bi ne du ko may nijaay ji yemu ci teg ci nangu téléphone doomam bu jigéen te téléphone boobu borom saret bi ci boppam moo ko jëndaloon ndaw si borom saret bi nag gannaaw ba mu jaaree fu nekk def lu ne ngir ñu may ko xale bi nijaay ji lank ba tëdd ci naaj bi ne du ko ko may waa ji ci boppam li mu mujj defa garaaw ndax dafa jël photo xale bu jigéen bi bu mu defee dung dal di ko publier ci seen groupe whatsapp bu famille patalaw waaye kii li mu def ëpp na de xale bu jigéen bi nag bi mu yegee ne photo bi mu def taatu ne na ngi wër groupe whatsapp bi ci la porte plainte waa ji borom saret bi bu ko way takk dari di jàpp nee ñu dañ ko fekk muy rab yamba ma ne yii rek kay def loo xale yi lu ne waaye yenn yi ku koy def mënoo lisit waay ci kanamu enquêteur yi nag borom saret bi nee na lu tax mu publier photo xale bi nee dafa def ci xale bi def ci xale bi ba son li mu amoon yëpp la def ci xale bi xale ko nag de mooy tës moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax waaw Miss Sénégal 2020 bi ne dañ koo violé ba noppi ëmbal ko waay waay waay waay waay réew mi réew mi réew mi réew mi dana toj de xale bi nee na dañ koo violé ca Miss ga ba mu jaare ca ëmb waa xale bi nag kan moo ko war a violé ngalaw day doo mbal nit réew mi tas na ba noppi ma ne mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz